toog gannaaw de nangoo saxal julli de nangoo joxe asaka bàyyi leen ñu libre nag léegi ci beneen aaya mu ne fa in taabu wa aqaamu sala wa aatawu zaka fa ixwaanukum fi din kon yii buñ ko defee day nekk nañ ci yéen mbokk ñu gis Muaz ibnu Jabal radiallahu anhu bañ ko jëmalee Yaman bokk na ca la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebee woon yaa ngi jëm ci boromi xam-xam yaani innaka taati qawma ahlil kitab kon li ñu jortu ci ñoom fokk mu nekk boroom xam-xam boroomu diine dafa war a nekk boroom xam-xam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah la nga leen di njëkk a wax nag woo leen ci pas-pas suñu la woyoo wax leen ne inna allaha iftarada alayhim xamsa salawatin fi lyawmi wal layla borom subhanahu wa taala faratal na ci ñoom juróomi julli bu dëkk ci suñ la woyoo ci loolu wax leen ne borom subhanahu wa taala faratal na ci ñoom asaka tuxadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim ñu koy jël ca ña woomal di ko delloo ca ña ñàkk suñ la nangulee lii nag wattaqi da'watal mazlum moytul nag léegi maanaa ñaanu yàlla ku ñu tooñ kon ñaar yooyu kon mooy tegtal yañu romboon ci juróomi ponk yi nga xam ne mooy ponk islam mooy seede yi mooy saxal julli mooy joxe asaka tey mu dem ak ñun ci ñaar yi des muy koor ak aj yi nga xam ne mooy sawmu di koor lu bañ a lekk bañ a naan rek lu bañ a lekk bañ a naan te yonent bi sallallahu alayhi wasallam won nañu aka bari ci ñi woor lañu ca am mooy aljuu wal atas xiif ak mar rek wal iyaazu billah kon nag moo taxoon yonent bi ne koor googu wa man lam yada qawla dóori wala amali bi falaysa lillahi haaja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu mu ne koo xam ne bàyyiwul caaxaan bàyyiwul neen ci jëf ko ak wax ko yàlla moom yoonam nekkul ci nga bañ a lekk bañ a naan maanaam koor googu borom bi subhanahu wa taala nee na yoonam nekkul ci kon koor googu gis nañu ne lu war la kon dañ ko war a def mais yan mbir la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fajee koor yan sanction la borom bi subhanahu wa taala waxee ne tooñ nga sa bopp mere naa la waaye boo waroon de ma jéggal la koor kon am na yu bari yoo xam ne faj na ko bokk nag ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam fajee koor mooy nga borik seytaane ak sa bakkan moo tax mu ne ndaw yi denc leen fexe leen denc ay soxna ndaxte loolu la ñu mooñee doomu aadama mu ne soo demee nag ba manoo ndaxte manoo koo dëkkal manoo koo wodd manoo koo dundal kon manoo mu ne kon kat taxol koor ndaxte koor moomu day dalay fekk koor moomu fekkee nag koor bi ànd ak taqwa mu ne boobu dalaay fekk kon njëriñ mu ngi noonu ci nga xam ne benn coono boo xam ne yonent bi ne na koor mun naa régler situation dal di téye sa deret wàññi na muy dawee delloo la ci borom bi subhanahu wa taala nërmal seytaane ba nga mun a wéy ci lii neex borom bi subhanahu wa taala gis nañu koo xam ne faat nag bakkan ba mu gannaaw ba mu faatee bakkan kafaara war na ko ndaxte teyu ko ba ko kafaara bi waree kafaara la ñu tay jiital mooy goreel la ñu tay toftal mooy lele juróom benn fukki miskin yii yëpp manoo ko borom bi subhanahu wa taala mu ne xam nga tooñ nga waaye gannaaw tooñ nga nag waaye wooral ma baal la maa moom bakkan yi wooral ma baal la du ma neenal beneen bakkan bi nga rey waaye dinaa ko defal yool defal la yool jéggal la kooku réglé na foofu benn situation gëñ nga gëñ dem nga ne ba nga xam ne ngëñ bi nga gëñoon kat ne dangay bàyyi munatoo bàyyi ne dangay def munatoo def ah boreel jaam dal dina fa taxaw leelal lele fukki miskin dal dina taxaw wala wodd leen dal dina taxaw waaye ñett yi munoo ci dara borom bi ne wooral ñetti fan ma baal di woor nit ki def na zihaar nirale soxnaam ak waajuram wal iyaadu billah borom bi subhanahu wa taala mu ne xam nga yaa bon yaay saay saay waaye wóor na la ne kii du sa yaay xam nga ko sax juru la waaye da ngaa bon nekk saay saay nekk wax ak lu bon waaye nag gannaaw man damay jéggale goreel jaam ma ne ah yàlla jaam bi de moom man ma ko de ma ne ah kon nag day jàllar beekul ba nga dal di lele juróom benn fukki miskin ma ne ay alal boobu fu ma koy jëlee ah kon nag wooral ma ñaari weer min qabli an yatamassa wala ngay laalati ndaw si nag wooral ñaari weer yu toftale loolu nga dal di woor ñaari weer yu toftale borom bi ne la yaa waxoon lu bon ma mer ci waaye jéggal naa la léegi bég naa xam naa ne nekk iman am na dañ naan yeneen bi la amoon ak yu baree baree bari nga xam ne koor jaar na fa mu nekk mbir yoo xam ne mbir yu rëy la borom bi subhanahu wa taala yonent bi nettali ne nit ki nga xam ne woor na ba ngoon ngalaw gémmiñam dal di soppeeku ngir marak xiif mu ne loolu moo gënal borom bi subhanahu wa taala misk gëtt bi gën a neex mu ne borom bi subhanahu wa taala moom gémmiñ googu ko gënal te mu ne am na benn buntu buy dem aljanna ñu jotleel ko rayyaan mu ne kenn amul daraja dugg fa lu dul assaadi koorkat kon li yëpp ngeneel yu mu sotti ci koor xemem loo ñi nga xam ne ngeneel lañu bëgg ngir ñu dal di ci dem kon koor googu nag dafa am tegtal li lenn la ci lu néew loo xam ne lu bari la mu ngi ci biir koor borom bi subhanahu wa taala dal di ñu wax ne yaa ayyuha alladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا eyen ñi gëm ndaxte ngëm moo mun a yóbbu koor lekk ak naan ak lu ne yaa ngi nekk wu ci nit waaye nga ne lii du ma la laal borom bi subhanahu wa taala moo ne naa la bàyyi waxtu sangam be waxtu sangam tënku boobu ngay tënku loolu iman la moo tax mu woo la ci baatu iman mu ne eyen ñi gëm kutiba faratal nañ bi maana furida faratal naa ci xeet wi alaykum ñi mu doon waxe ñooy xeetu muhammad sallallahu alaihi wasallam li mu faratal ci moom mooy asiyam kon mooy lu tol tàmbale ba fajar ba jant bi soof nga bàyyi lekk bàyyi naan ak lépp lu yàq koor lekk ak naan dong nag lañ la tere xanaa ak sëy loolu dañ la tere de loo xam ne daganoon na ci yow waaye lu dul loolu leneen li koor tere yépp islam tere woon na ko balaa koor waaye bëccëg bi nag moom fajar ba jant so ñett yi daganoon na ci yow mooy heure bu la neexee nga lekk heure bu la neexee nga naan heure bu la neexee nga dem ci sa soxna parce que loolu la borom bi subhanahu wa taala wax mu ne seen soxna yi harsun lakum faatu harsakum annas mu ne sa soxna sa tool la heure bu la neex doo tàggu kenn ngay dem ci sa tool ah mu ne nag loolu nag bëccëg bii moom tere nañ la te mu nekk fan yi nga xam ne mooy fan koor ñett yooyu dongo daal la koor tere mbir mu daga noonu waaye lu dul loolu nit wax lu ko nga def ah xanaa yëgoo ne da ngaa woor waaye xam la soxla kaana muharrama wala muy woor itam dañ koo tere woon ah nit fen ñu ne ko ah ci koor nga ne nit xaas ñu ne ko ci koor nga ne kon loolu koor daa fekkoon mu xaraam kon koor boobu la borom bi subhanahu wa taala mu ne faratal naa ko ci yéen waaye du yéen dongo de kama kutiba ala alladina min qablikum ni ma ko farataaleeloon ci xeet yi leen jiitu woon borom bi lu tax ngir sonnal nit ñi borom bi ne déedéet la allakum tattaqun ngir ngeen mun a am ragal yàlla ngir ngeen mun a am yëg-yëg ci borom bi subhanahu wa taala donte borom xam-xam yi dinañ ci tudd yeneen yu bari yow ki nga xam ne heure bu la neexee nga lekk te am nga ko waaye léegi nga bugg a lekk te doo lekk nga yëg ndeke a xiif nii la métti ndeke waaye ji ñëwoon mu ne ma añuma maag sama njaboot ndeke lii la ñu yëgoon ah keneen bu ñëwatee wax ma loolu ma xam ne sonn na ma dal di ko dimbale loo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne am na benn waay bu dugg aljanna ci xaj kal xaj daa dem mara mara mara mar be sonn dox ba sonn ci àll bi mu ngi mar mu gis benn seyaan rek dal di wàcc naan ba mandi dal di génn naan fiix nag dox rek dajeeg benn xaj génneel nam ne ci sonn ndeysaan xaj bi toll na fa ma toll woon mu dal di dëpp duggaat ci biir solal dal di marakis bi mu yore woon ndaxte noonu lañ ko tuddee xuf dañ ko misaalee marakis rek ndaxte mooy li tànk fi muy dugg ci dàll mu sol ko ba mu fees génnee jox xaj bi mu naan daal di dem ndeysaan sonn na fa ma toll woon borom bi subhanahu wa taala mu ne jéggal na sa yëg yëg boobu yëg yëg boobu nga am jéggal kon loolu itam lenn la ci njëriñu koor ñu gis yonent bi melal ne benn jigéen dugg na safara ci muus benn muus mu dugg safara ñu ne loolu nu mu demee mu ne daa jàpp muus ba yeewu ko joxu ko lu muy lekk yebalu ko mu dem lekk ci wërsëgu borom bi subhanahu wa taala ndax teg ko foofu rek ba mu dee borom bi dal di ko mere dugal ko safara kon gis nañu dëggu kaddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi kulli qalbin ratbin sadaqa ñu ne xol bu tooy bu ne boo xam ne dafa dund boo ko defalee rek sarax lañ koy jàppee xol bu tooy boo xam ne dafa dund loo ko defal sarax lañ koy jàppee waaye boo ko xañee aqub yàlla bi mu ko moom loo itam borom bi subhanahu wa taala bindal la ci ab bàkkaar xale dimbale na xaj dugg aljanna xale xañ na muus dugg safara kon ci loolu la allakum tattab ngir ngeen mun a ragal yàlla ci lu gaaw rek lan mooy taqwa taqwa dëgg-dëgg buñ ko seetoon mooy lan am na sahaaba yu firi taqwa ci firi bu yaatu am ñu ko firi ci firi bu yem mooy jaalu baynaka wa bayna adabillahi wiqaaya mooy fexe def sa diggante ak mbugalum borom bi subhanahu wa taala lu fay jaar bi mbugal du yegg si moo taxoon yonent bi ne fattaqullaha walaw bi shiqqi tamra ragalee leen yàlla donte genn wàllu tàndarma genn wàllu tàndarma nga am xaj ko ci digg bi lekk benn wàll bi benn wàll bi joxe ko fi sabilillah ngir nga mun a texe mucc ci safara kon léegi kon nga def sa diggante ak mbugalum borom bi mooy maana taqwa waaye firi bu yaatu bi bu ñu demee ci ali ibn abi talibi radiallahu an dinañ gis ne moom firee na ko ñeenti baat ñeenti baat la firee ak taqwa li koor di indi ñeenti baat yooyu mooy lan al khawfu min al jalil wal amalu bi tanzil wal rida bil qalil wal istidal li yawmi rahma mu ne ñeenti baat yi daal buñ ko peegee dinañ fekk mooy ak taqwa mu ne mooy nga ragal ku màgg ci mooy allah nga ragal ku màgg mooy benn ñaareel bi mu ne nga jëfee li ku màgg ki wàccee mooy quranul karim ku màgg ki la mu wàccee mu ne na nga jëfee loolu ñetteel bi mu ne lu tuuti li la borom bi séddee na nga ko bégee ñeenteel bi foo toll na nga waajal dellu na ca borom mu ne ñeent yi ku ko yittewoo rek yaa am li nekk taqwa ci salafit am na ku ñu laajoon taqwa kenn waaye ñëw ne ko waaw taqwa moom dëgg-dëgg lu muy firi mu ne ni ma laay biralee taqwa waaw léegi yow boo demoon ci yoon fekk ñu tuur ci ndox mu salte ci yoon bi yépp looy def mu ne bu ma ñëwee ba jub ndox ma damay dal di taxaw wogu te sama yére yépp nekk ci kaw ma dal di taxaw xool ndox mi bu baax a baax xool fu am lu ñu wër te ndox laalu ko ci ndox mu salte boobu ma teg fa sama tànk def ndànk ndànk ba romb ko mu ne looloy taqwa ne ko gis nga loolu nga def mu ne waaw mu ne loolu mooy taqwa boo defee loolu ci àdduna rek am na li nga xam ne mooy ak taqwa kon gannaaw dañuy làmb ragal yàlla te borom bi digal ñu ko te mu ne ko am texe nga waaye waaye bu koor ñëwee dañu war a góorgóorlu koor ñëwee dañu war a góorgóorlu kon fu ñu toll itam dañuy taxoo ak moom koor boobu am na koor yu war am yu waru am na koor yu war am yu waru koor yi nga xam ne war na mun nañ koo natt ci ñetti koor ñooy yi war benn bi la borom bi subhanahu wa taala faratal ci sa loos yeneen ñaar yi yaa koy sabab benn bi mu faratal ci sa loos mooy kooru weeru koor weeru koor bi mu wax ne kutiba alaykum siyam boobu mooy bi war ñaareel bi ci tegu mooy nitar nit ki feebar na mu ne bu ma wéree dinaa woor fan wala ñaari fan wala muy wut dara mu ne bu ma amee dinaa def kon kooku war na ci yow waaye yaa ko waral sa bopp mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy kooru kafaara munoo goreel munoo lele kon li ci des rek mooy sa wareef mooy koor koor googu itam nag bu demee ba manoo ko itam ah léeg-léeg borom subhanahu wa taala moon na ne moom ko fuur rahim fekke ne taqwa bi am na ragal yàlla ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ba benn waay ñëw di daw kanam gi soppeeku mu mel noo xam ne boo ko gisee rek yërëm ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaawee ma xalaktu xalaktu wa ahlaktu alkuna yàqu naa waaw yonent bi ne waaw lu xew mu ne sëy naag sama soxna ci wee bëcc bu weeru koor yàqu na yàqu na léegi lu may setal mu ne ko ah léegi day mbir am na loolu dal dina ko def mu ne waaw waaw loolu day am na mu ne leen day kon kafara taxaw mun ngaa goreel ab jaam xee jaam kay moom aw jaam man ma nekk ku ñàkk fu may jëlee ab jaam jaam aw ma ko de mu ne ko ah mun ngaa war ñaari weer ñaari weer yu sisalu mu ne man ni ma loofi wéruma manuma de te awma lu ma lele man daal dara manuma awma lu ma lele de yonent bi ne ko eh loolu de kon doy na waar yonent bi dugg génn dem indi bagaalu tàndarma ndab ba mu fees tàndarma mu ne ko waaw jëlal ndab bi yóbbul ko miskin bo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a ala afqara minni mu ne ma wër ku ma gën a ñàkk ma jox ko mu ne ko kat man bay na laabatayha diggante ñaari xeer yi nga xam ne ñoo wër Madina gisuma ku ma gën a yeew lii fekkee nag ma yenu ko di wër ba gis ku ma gën a ñàkk ah xanaa loolu de yonent bi muuñ ba bëñ yi feeñ mu ne ko jëlal yóbbu leyal sa njaboot jëlal yóbbu leyal sa njaboot hakada kon gis nga kii topp nañ yépp waaye gis na munul yépp waaye teewul nag jàdd na yoon waaye borom bi subhanahu wa taala topp ko ca loola gannaaw dem nañ ba léppam dal di jeex te rëccu na di wut koy laabal borom bi loolu rek la bëgg rëccul rek loo def daal boo ko rëccoo rek jeex na borom bi subhanahu wa taala mu ne toppatuma la dara kon yooyu ñu bàyyi xel ci koor kon koor gii mooy kooru ñaareel bi bi war ñetteel bi mooy kafaara mooy bi ñu tudd léegi moo xam dafa béñ moo xam dafa zihaar mooy niirale soxnaam ak waajuram wal iyaasu billah moo xam dafa rey ab bakkan moo xam dafa doon aj def am jumti yeneen yu mel noonu yooyu yépp gis nañ koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal dina ko fajee koor yi nag bari nañ gannaaw kooru farata dinañ soobu ci kooru gàttanga kooru gàttanga googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëral na ko gannaaw koor juróom benni fan ci weeru kori mu ne loolu ku ko def mu ngi mel ni yow sax dund yëpp dañ koo woor ndaxte sa at bi yëpp jàppee nañ ko dañ koo woor ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne boo defee benn bu baax ma fay la fukk woor nga benn weer waaye fukki weer kon jàppe na na yoolu fukki weer am na ko waaye dese na la ñaari weer kooru sun na ñëw mu ne juróom benni fan gannaaw kori fan bu nekk fukki fan kon juróom benn fukki fan mat na kon fukki weer ak ñaar dal dina mat at bu nekk nga def ko kon sa dund yëpp dañ koo koo woor loolu itam nekk na kooru gàttaan la juróom benni fan yëpp ak bépp altine ak bépp alxames bépp altine bu ñëw rek ak bépp alxames yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doon woor mu nekk kooru gàttan ak ñetti fan ci weer wu ne ñetti fan ci weer wu ne mooy fan yi nga xam ne leer gi day fanaan ci fanam ñett ci fanam ñeent ci fanam juróom kooku leer gi day dal di fanaan ñu tuddee ko ayyaamul biir maanaa fan yu leer yi yooyu itam mu nekk benn koor boo xam ne mooy kooru gàttal ak fukki fan ci zulhijja wala juróom-ñeenti fan keroog ba mu ne benn ba yow mu arafa boo bokkul ci waa arafa boo taxawul arafa fekkee da ngay taxaw juróom-ñeenti fan yi loolu itam mu nekk benn koor boo xam ne mooy kooru gàttal ak bii nga xam ne mooy tam xarit juróom-ñeenteel ba ak fukkeel ba ak bii nga xam ne wala nga fekk benn bii nga xam ne mooy bésu arafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne boobu day bokk na ci ngini la boo ko wooree yu kaffiru sana bàkkaar ya nga defoon at at bi nga xam ne jàll na de mu dal di ñu ne yaa borom bi ne la jéggal naa la ak gannaaw weer wi bu ñëwee at bu bees day teru mu ne loolu itam bàkkaar yu sew ya nga nara defi jéggal naa la ko waaye nag sart la yonent bi wax indi jutuni batil kadalik su fekkee bàkkaar yu mag ya moytu nañu ko kon jéggal nañ la yaweesu ya nga nar a defi ci xam-xam borom bi subhanahu wa taala mu ne dinaa ko def waaye jéggal naa ko parce que woor na yow mu arafa dina defi bàkkaar bi waaye jéggal naa ko parce que woor na lii nga xam ne mooy yow mu arafa kon lii lenn la ci koor yi nga xam ne mooy koor coobare ay naa yaani ci koor yi nga xam ne itam mooy weeru baraxlu maanaam weer bi nga xam ne bu jàllee korite dal di ñëw boobu itam fukk ak juróom yu njëkk yi xaaj bu njëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ci doon góorgóorlu bu baax a baax waaye xaaju ñaareel bi da doon tere ku ko woor léeg-léeg nag nisfu saaban lañ ko doon tuddee ñu bari nag jàpp mooy fukkeel ba juum ay fekk du loolu benn bés bi nga xam ne moo moo séparé weer wi déedéet waxul intisaaf nisfu saaban rek la wax nisfu bi nag bu ñu nee moocce nag xaw ma nu ñu def déggee ko benn fan moocce rek ñu dégg ne mooy benn bi nekk intercalé ci diggante yi loolu damaa xamul fu ñu ko déggee du ci làmmiñu arab bi moom ndaxte moom moocce la wax mocc nag liñ koy déggee mooy duubul bi nga xaaj ko ci digg bi benn bi di mocc ahadis yi ñëw yëpp ci mocci ramadan lañu kon mooy benn ba bi fukk ak juróom yonent bi ne boo fa yegsee nag arrêté bàyyi li ci des nga am ci dëgër laay ngir waajal leneen li nga xam ne mooy yoonu koor koor bari na façon yu baree bari loolu yëpp kon nekk na tëralin boo xam ne tëralinu coobare la kon yooyu yëpp borom bi subhanahu wa taala mu ne maa koy defee ngir jënil ngir jéggal bàkkaar rek yokkuy daraja looloo taxoon fii mu ne la allakum tattaqu ngir ngeen mën a ragal borom bi subhanahu wa taala kon nañu xër ngir ragal borom bi yàlla nañ ko defal ñaareelu xaaj bi ci des mooy alxajju mooy dem makkatal mukarrama bokk na ci ngéneelu makka borom bi woo la nga wuyu ji ko ndaxte loolu la borom bi waxoon ibrahim alayhi salaam wooteel nit ñi ñu wuyu la ibrahim alayhi salaam xam na ne farata lii farata ci moom mooy sant nañ ko na def mu yëg ca xeer ya dal di wóob amul mu kabbi sawt amul lenn loo xam ne mooy réel baatam comme niñ koy defee fii léegi amul loo xam ne mooy telex amul télévision amul fax amul dara internet dara amul woowal jaabi rek ndaxte xam na ne wareef la te borom bi subhanahu wa taala nee na boo woowee rek ñu dem ñu ñëw يأتوك رجالا وعلى كل دابر يأتين من كل فج عميق mu ne boo wootee rek nga gis ñuy ñëw di dox nga gis ñu ñëw war ay gàtt waaye bépp goxu aduna da nga gis ñu fa jógee ñëw dal di uyis kon loolu la santaane woon foofu kon aj boobu itam muy mbir moo xam ne mbir mu màgg a màgg la ndaxte boo seetee alxajju mooy alqasdu mooy am jubluwaay jëm ca borom ba subhanahu wa taala gannaaw nag borom bi subhanahu wa taala moo ko santaane te moo sàkk jaam yi wóor na ko ne jaam yi wuute lañu boo fa gisee gis koo xam ne seen civilisation bokkul seen aada bokkul seen melo bokkul seen dundin bokkul seen gox yi bokkul seen lamme yi du ngeen déggante kon bu ngeen fa dajee laaj jikko fa laaj jikko te yéenaay dem daje fa seen kéemtaanu borom bi subhanahu wa taala seen kéemtaan ba moo tax borom bi ne gis ngeen fi ma leen woo ku fi ñëw xelaat mooy yàlla rek wa azibhu adaban alima xelaat la wax waxul jëf de feneen fu dul foofu mu ne boo xelaatee bu nga def lu bon te jëfoo ko ma bindal la di yàlla waaye béréb ba mu woo rassemblement bu mag boobu mu ne boo xelaatee lu bon rek ma dal di la bugal bugal bu métti métti moo tax mu ñoŋal xatta rat yaag garab ya boo xesee ihram amatul droit rey lenn lu dul li ñuy tuddee al fuway sit maanaam yi nga xam ne mooy rab yi ñu daganal ñu rey lu mel ni janax mel ni ay melentaan lu mel ni ay unku lu mel ni ay liccin lu mel ni xaj bu ñuul lu mel ni jaan yooyu moom day dal di dagan toujours ndaxte day lor ab doomu aadama waaye lu dul lii même benn rabu àll boo ko tiitaloon mu dee rek am nga problème foog nga seet lu toll noonu ci rabu kër yi nga rey garab ya amoo droit damm ñëw rek ci garabu xaram yi nga naa demal ci xaram damm fi soccu tooñ mu ne léegi lépp a war a ñoŋ ni nga ihramee noonu nga war a ñoŋalee lépp kon béréb boobu mooy béréb bi mu woone nañu dem wuyu ji ko kon foofu boo demee wuyu ji laaj na ay mbir moo tax mu ne ñu alhajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi lhajj mu ne aj nag weer yu ñu xam la aj mu ne yooyu moo weer yu ñu xam la te xam leen mu leer mu ne ku dem ba fas yéene def ci ab aj nag ah na la wóor ne caaxaan jeex na kaf ak jigéen jeex wala rafasa kaf ak jigéen mu ne loolu moom jeex na de na terminé mu ne wala fusuqa lépp loo xam mooy yàlla la mu ne bàyyi ko wala jidaala lépp loo xam ne weerante la ak dàgg siwante bay mu ne loolu bokkul ci aj ndaxte yooyu ñooy indi ay problème mu ne yooyu moom bako en tout cas boo seetee yooyu tere woon nañ la ko def amu ci lenn loo xam ne daganoon na balaa ngay aji fii ñu toog sax loolu daganu romb koo xam ne du sa soxna ngay kafak moom ah lu daganu dafa xaram waaw fen nag ak caaxaan ak def lu ko loolu itam dafa xaram nekk di daggate wante mbir loolu itam daganu ndaxte li muy indi mooy noonu mu ne rawatina nag ca béréb booba bàyyi ko de bu ko def de mu ne nag kon kuy dem dafa war a yóbbalu fa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa fattaquuni ya ulil albab mu ne kon wuut leen yóbbal li gën ci yóbbal nag mooy ragal borom subhanahu wa taala mu ne yéen borom xel yi ragal leen ma kon béréb boobu la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alhajju lmabruru laysa lahu ljazaa illa aljanna mu ne aj bu ñu nangu ñu ne ko waaw mu ne kooku amul fay de ca yàlla mu ne waaw mu ne dugg aljanna aj ba pare ñu ne nangu nañ aj ga mu ne jeex na kooku moo ila janna dugg aljanna rek waaye nag aka bëri kuy aji fekk la muy am ca ajam googu daal mooy ñàkk xaalis ak coon aka bëri aka bëri kon nag yàlla nañu ko borom subhanahu wa taala bu sëkk aj bu nangu nag bokk na ca tegtal ya nit yin bu rafet nit yin bu rafet mooy ba nga ñëwee lépp loo doon def lu bon loolu ngay tuub waaye nit ci giiw axi loolu na ci bàyyi xel loolu yow leneen a taxoon nga dem waaye du yenne ku bàkkaar yit ci giiw te ñi ngay dajale li ci ëpp mooy alfasaqa li ci ëpp ay kàccoor dong ngay dajale jigéen ñoo xam ne ñu ngi xolli seeni der jigéen ñoo xam ne ñu ngi def lu kenn xamul dajale ne ñu yuuxu rek di dóorante ay loxo di wax ay caaxaan ñuy togg di yëkk rek di yàq ah yàq boobu la borom bi subhanahu wa taala kon yàlla waay moytu leen wala tubaziru tabziran inna almubazirina kaanu ixwana shayatin mu ne bu leen yàq bu leen pasar pasar xanaa yégoo yàqkat bi mbokk seytaane la seytaane yóbbu na la ba mbokkoo nga ak moom te yow yëguloo boo waxee ñu ne manta ñàkk yàq ak dajale ñu bon manta ñàkk te nga demoon ba makkatal mukarram ngir bàyyi fa say bàkkaar ba mu set wecc keroog ba nga yegtee keroog nga sosaat nag di def leneen loolu la muy wone mooy ajjay borom bi yoonam nekku ci waaye bu ci yoonam nekkoon du la seetaan mukk ndaxte kullun muyassarun lima xuliqa la borom bi subhana wa taala mu ne ku ne la tax mu sàkk ko bu dee aljanna yoonu aljanna day yomb ci moom lu baax rek la bëgg mais lu bon moom yoonam nekk waaye tey boo ko defoon ñu ne dafa siisat ibaadulaat dafa soxorat dafa mel nangamat waaye nag bu fekkee ne ku dëgër nga laa yaaxuduhu fi llahi lawmata laaim yeddkat yi yooyu sa yoon dum ci nekk yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko sànne jam koy xeer def lu ne mu ne yàlla boo merul rek lu ci des it yokkatu du dara sab mer rek mooy jafe-jafe waaye yow na nga fexe di bégal nit ñi mer loo borom bi subhanahu wa taala loolu mooy ku dof loolu taxoon borom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne al kayyisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da mu ne xam ngeen ku muus te ñor ñu ne waaw mu ne mooy ku fexe noot bakkanam ba moom ko jëfloo ko gannaaw dee lépp lu muy jëf rek mu sóoraale gannaaw dee mu ne kooku mooy ki am xel kooku mooy ki dëgër kon yàlla nañu ko borom bi may kon loolu la borom bi di junj fii mu ne ñu walillahi ala nnaasi hijju lbayti man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin walillahi ala borom bi subhanahu wa taala mu ne man day maa ci lu jóge ci man laa faratale ci nit ñi nañu dan di dem makkatal mukarrama waaye naka la man istataa ilayhi sabilan ku ko man laa wax de benn yoon benn bi fu pare pare na la ëppoon yool benn boobu bu jeexee yaa axi joxal keneen ku man mu def waaye dem naa juróom ñaari yoon fa nga fa la tiyaabu bi jeexee borom bi subhanahu wa taala nag digle na booy dem rek ñuy jéggale bàkkaar waaye gannaaw ba nga taxawee naan man dem naa juróom-ñaari yoon lillahi jeex na looy woon nit ñi lillahi jeex na xalaat amatu ci yoon kon léegi dem nga benn yoon dem nga ñaari yoon yaa axi am na mbokk bu fi nekk amul dépense wallahi nga joxoon ko mu am dépense mu gën ko dépense moo gënal borom xolal borom bi subhanahu wa taala même kaffaara lu mu ci def rek lan lay jiital goreel jaam ndaxte borom bi liberté la bëgg liberté goreelal jaam boo munul goreel jaam rek mu ne leelal miskin munuma goreel jaam mu ne leelal miskin wala nga wadd miskin kon nag boo yégoon wallahi nga dal di jox ñooñu moo ëpp yoon fépp moo tax borom bi mu ne su ko soo ko manee keroog ba ñu ko jàngee aaya bi am ku jóg ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a fii kulli aamin yonent bi wuyuwul ba muy ñetti yoon yonent bi ne bu ma ko noonu waaw rek mu nekk farata du ngeen ko man mu ne ko yonent bi ndax aj bu nekk heure bu nekk la ñuy aji ndax at mu nekk la ñuy aji xëj na moom fi mu dëkk ak fi kaaba bi nekk xëj na du ko sonnal yonent bi noppi rek ba mu yàgg mu ne ko déedéet benn yoon la ci dund waaye bu ma leen woon waaw rek mu war te fekk du ngeen ko man da'uuni maa taraktukum mu ne feeg maa ngi noppi bàyyi leen rek sëñ bi bàyyi leen ma noppi rek jaamoo yàlla li ma leen waxee kon looloo tax mu ne am na ay xeet yi leen alakoon mooy kasratu masailihim wa ixtilaafuhum ala amrillah mooy laajte yu bëri yi ñuy laaj rek te du fas yéene jëfee amma bu dee fas yéene jëfee nag laaj lu war la fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waaye bu dee laaju diina laaju natt ñaar ñi kan ci moom moo raw xam-xam laaju naka lay def ba li ma war ma mun koo bàyyi laaj yooyu la borom subhanahu wa taala ne yooyu baaxul yooyu xaraam la te aka bari ci doomu aadama yi léeg-léeg nit laaj la ab laaj ba pare nga tontu ko ba pare mu ne ah laajoon naa ko dimbi waaye nangam la ma waxoon mais lu tax nga laaj ko keneen yow laaj nga ko wax nag nga ba pare mais loo ci laajal keneen lu tee nga jàpp yàlla jaamoo noonu rek def xanaa fekk kooku nga laajoon da nga ko wóoluwul ko waaye su fekkee wóolu woo ko lu taxoon nga laaj ko ah kon yooyu itam war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ba ma ko laajee diw daal nangam la ma waxoon ba ma ko laajee diw daal nangam la ko ah kii xamul dara waaw yow kii laaj nag yow xam nga ah loolu nañ ci bàyyi xel de bu baax a baax moo tax laaj yooyu yonent bi ne moo alakoon ay xeet ndaxte boo laajee rek jiiji loolu moo tax mbir yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon dem màkka benn yoon la ci ku ko man man boobu nag mooy al istitaa borom xam-xam yi firi nañu ko man mu ne mooy koo xam ne moom ci boppam am na zaat am na raaxila am na al istitaa al jismiya te am na al amnu fi tat ñeent yi bu dajee maanaam aj war na la boo ko deful rek weddi nga moo tax aaya bi mu ne wa man kafara éey ku bañ ku bañ na nga yëg ne yàlla doylu na ci yow yàlla kalaatetu la ñeent yooyu mooy lan mooy na nga am yóbbal yóbbal bi mooy paas ak la ngay lekk ak la nga bàyyee yóbbal loolu mooy yóbbal paas bi lay yóbbu dépense bi mu fay def ak la ngay bàyyee njaboot bi loolu mooy yóbbal waaye na fekk nag amaloo kenn fifti kenn bu fekkee yaa ngi yoree bor rek manoo toogal fayal bor yi nga dal di toog manoo loolu bu féetee boor mu ne arraayi na nga am waruwaay li nga xam ne moo lay yóbbu kooku dañ ko war a am mu ne loolu du sottee na fekk yow waruwaay boobu am nga possibilité war ko bu fekkee wéru mu ne kon mënuloo bul def boobu bu jàllee mu ne yow nii ci sa bopp na na fekk yoon wa ngay jaar dem am na sécurité sa yóbbal bii kenn du la duma nangu ko sa bakkan bii yaakaar nga ne kenn du ko fokk lii yépp bu paree loolu mooy ñeenti sart yi nga xam ne bu dajee aj war na bu dee ak jigéen yokkal ko juróomi mooy na nga am borom mahram koy àndal na nga am mahram koy àndal baay maam mag rakk jëkk da nga am koo xam ne daal munu leen sëy waaye nag du ngir ne kii maa yore magam munuñu sëy waxuñu loolu de mahram bi nga xam ne mooy ala taabid mooy ba faw munu leen sëy waaye bu fekkee ne yaay yaay jëkkëru magam rek kon mun nga ànd ak rakkam waxuñu loolu de parce que li tax munu leen sëy rek mooy mag jàgam mag ja bu tasoon rek mun ngeen sëy mag ja bu deewoon rek mun ngeen sëy waxul li nga xam ne lu tax munu leen sëy mooy mu am xat maanaam daa am lu fa dox rek bu fa jógee waxuñu loolu de ndaxte ku am ñeenti soxna moom jigéen ñi ci des yëpp maxaramam la munatoo see ak kenn ñeenti soxna boo ko amee amatoo munatoo see benn jigéen ci àdduna jeex na kenn rek da nga mun a am jaam bu ñuy jaay nga dal di jënd ñëw kooku du soxna ko ku alal ma te kon nag la ñuy wax mooy koo xam ne li tax mu xaraam ci yow du jóge abadan du fa jóge maanaam sa doom la wala sa yaay la sa mag la wala sa rakk aka la wala nag ci sa soxna la lii daal bu amee ci jigéen mooy fonk juróomeel bi cay teg boobu bu noppee nag aji man na am bu dee mazhab malik nag ñoom ñu ngi wax a rifqa bu amee àndandoo yu ñu wóolu ñoom daganal dañ loolu jigéen bi groupe la par groupe la ñuy dem comme ni ñuy demee léegi groupe aj te gaa groupe boobu muy àndal am nañu ci ñoom confiance waaw lan mooy confiance ci islam man tardawna diinahu wa koo xam ne gërëm nga diine gërëm nga jikkoom su dee ci mazhab malik mu ne kon dagan na nga yebal sa doom bu jigéen wala sa mag wala sa rakk wala sa soxna wala sa waajur mu dal di àndal di ko ñaan amma ñeneen ñi moom d'accord ñu ne mahram rek problème yooyu nag yóbbee na ci jamono ci wàllu politique am na ci ñoo xam ne ñu ngi xas di saaga di wax lu ne nañuy de war a def marche dañu war a def lii dañu war a xas dañu war a dénoncer comme Arabie saoudite bi ñu wax moyen de quarante cinq ans waaye wallahi man maa ngi ànd ak ñoom te loolu mooy sharia ñoom sax am na lu ñu bàyyi mais bu ñu waxoon mahram lu ñuy def te sharia mahram la wax sharia musul wax moyen de quarante cinq ans nangam sharia la wax waaye ñoom gis nañ ne moyen loolu ñuy wax coono biñ fay am buñ fa demee ndaxte dëgg dëgg ci wàccuwaayu sénégalais yi boo fa demee keroog ba nga xamee ne keroog lañu jógee arafa jeexal ihram yi ñoom seen sécurité ci dalu africain yi dañ koy yokk bu dee téeméeri ki police ñoo fa nekkoon keroog moom dinañ fexe lu mu néew néew muy ñetti téeméer ngir solu bi ñuy solu ak wax yi ñuy wax ak dugg génn bi nga xam ne ñoom xamuñu yaa ngi fay gis jigéen yaa ngi fay col col yoo xam ne di wax wax yoo xam ne la hawla wala quwwata illa billah kon yooyu dañu ci bàyyi xel ba léegi ñoo wax nañ moyen de quarante cinq ans mais xam naa bu ñu defoon mahram daal moo gënaloon diine te mooy li gën a sell itam ndax loo xelaat ci lu ñaaw lu doomu aadama ñemewul netti boo fa demee dañ ci teg sa bopp nga xam ne doomu aadama ñemewul toog fii netti ko ndaxte dañuy wax ne da ngay yàq deru sénégalais wala da ngay def nangama nangam waaye bu la fa yàlla yóbboo ba nga taxaw xool nii te nga am benn yëg-yëg wallaay boo ñibbisee fii da nga da nga ragal borom bi subhanahu wa taala ragal borom bi subhanahu wa taala ngay def rendez-vous yañ fay fixé ak mbir yañ fay wax yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala musu kon nag man istataa ilayhi sabila kon benn yoon la ci dund waaye mu ne nag waman kafara ku weddi maanaam ku lànk sart yëpp daal dina daje bu dee góol ñee kii ñeent yi daje nañu bu dee jigéen juróomeel bi daje na muy juróomi sart yooyu yooyu yëpp daje nga lànk mu ne waman kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin mu ne na nga xam ne borom bi subhanahu wa taala doylu na ci sa mbir gàttañlu na ci sa mbir booleetu la ci ñi nga xam ne dañu koy nangul kon aj boobu nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te ñu xam ne yonent bi ne na ku dem aji dal di ñëw keroog ba mu yegsee mu ngi mel niñ ko juree woon indiw amatul benn bàkkaar laaf na benn bàkkaar amat waaye nag na nekk aj moo xam ne aj ku sell la loolu moo tax borom xam-xam yi wute ci kii nga xam ne nag dem na ci aj bi waru ko woon ne loolu tee ñu nangul ko ab ajam lu mel ni gone boo xam ne dem na ba ràññee xàmmee te kallafeegul julli war ko mais bu julli am na yoon waaye bu julliwul amu ci naan amu ci bàkkaar lu dul bu ëppee fukki at amagu ci waaye waajuram nag nag ni sëpp ne duma ko bu fekkee julli waaye nekkul ne day am bàkkaar moom bu ko bàyyee déedéet waaye boo ko bàyyee noonu ba mu toog ba fu muy kallafe nag nga ne ko julli kooku beneen affaire la foog ñu xam loo ko waaw léegi nag ñu ne ku fekkee ne alal bi nga yóbbu nag alal ji sellul alal jooju sellul am ñu ne kooku moom borom subhanahu wa taala yoonam nekk ci ndaxte inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ñenn ñi ne kon aj booba baaxul borom bi yoonam nekk ci ñenn ñu déet aj boobu moom sax fii mat na xëj na li des mooy laabal ma waaye ku ponk ba dal dina ko wàcc waaye amu ci yoon waaw kon nag ñaari wax yi lu ñu wuute waxin baa wuute kay waaye lépp benn la gannaaw ñii ne na aj bi baaxul ñeneen ñi ne déedéet ponk bi wàcc na ko waaye amu ci yoon waaw lu tax amul yoon mooy baaxul kon moo tax lépp rek boo ko gisee da ngay gis ne mbir mi mooy da ngay bàyyi bi mu war la waaw léegi nag li jamono di def indil ñaar ma indi ñett ci indi ñeent kenn aji ah am na borom xam-xam yu d'accord nekk du yoon loolu ci borom xam-xam ñu ne loolu du yoon ndaxte waruloo lepp aji ndaxte waru la borom bi subhanahu wa taala tegu la te ki la jox assuré woone dina dellu si fay ko mooy ñaareel point ñetteel bi ñu ne bor la te bépp bor bu la ñoddil intérêt fa huwa riban kullu dayni jarra nafan fa huwa riban bépp bor bu la ñoddil intérêt rek mu ne loolu moom riba la kon ba koy jox mbir moomu moo tax kon moo tax lenn ci borom xam-xam yi gis ne loolu moom daganul rek lu dagan ñenn ñi nag gis ne dina wàccee ak ponk bi ñu tegoon ci yow su fekkee ne da nga leen delloo waaye nag dugal nga sa bopp lu la borom subhanahu wa taala sant lool maanaam sonnal nga sa bopp ci loo xam ne diine moom da defoon mu nekk simple kon ponk boobu nga xam ne ñu bari borom bi subhanahu wa taala baaxeewu leen ngir ñu dem defi ko kon yow bu la borom bi baaxee ngir nga defi ko fexeel mu rafet fexeel mu sell fexeel mu dal di baax dal di tegu ci yoon ndaxte boo ko defee mu ngi mel ni yow sa diine yépp matale nga ko ndaxte ponk yooyu yépp bokk na dal di mat kon lii lenn la ci tegtal yooyu nga xam ne yooyu la ñu mun ci jël yal nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee ba ñu mun a jooxe ponk yi na mu waree te borom bi subhanahu wa taala nangul ñu ko اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وكله borom bi subhanahu wa taala baaxee nañu ba ñu yittewoo lii tax doomu aadama texe jàmm am ci kaw suuf muy pas-pasam ci biir pas-pas boobu lañu demoon ba mu leeralal ñu lan mooy pas-pas saxal julli ak i ponk ya ca aju ak lan mooy imaan bu ci nekk nag ci xaajub ñaareel bi mu ñu doon waxal maarifatu diin islaami bil adilla nit ki ràññee xam diini di teg ko ci ay tegtal alhamdulillah juróomi ponk yi ponk bu nekk indil nañu ko mu tegal ñu ci ay tegtal muy arkaanul islaam amma tey nag mu ngi dugg ak ñun ci beneen tomb ci tëralin bi muy tomb ñaareel gannaaw bam ñu waxee mu ñuy waxal cosaan yi tey mu ne ñu al martabatu thaniyatu al iman dañu amoon al islam al iman al ihsan kon tey ñu ngi ci al iman ko seetee tomb bi jëloon nañ ci lu yaatu ndaxte ba ñu tàmbalee ba léegi mënuñu jël lu dul li nga xam ne la koy lal mooy al iman iman boobu nag mooy islam ci boppam dañu ko junjeewoon ñaari baat la suñu toftalante rek lañuy firi wute suñu sori bu ci nekk laafaale beneen ba mooy al islam ak al iman bu fekkee ne ñoom ñoo toppante islam firi li feeñ lañuy gis di wone ak pas-pas iman firi li nekk ci biir xol te duñ ko gis di conditionné lay génn ci biti kon iman boobu la jaaroon ak ñun waxal ñu ay ponkam yi di juróom benn te bu ci nekk jaar nañ ci ci settantal ak ci tegtal juróom benn yooyu nag mu woon ñu ne mooy nekk ci xolub doomu aadama génni ab kaddu dong du ci doy fokk kàddu gi mu génni jëf ja muy jëf dëppoo kàddu ga looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee makkatul mukarrama dem madinatul munawwara te ñu gis ne li muy wut rek mooy baat bi ñu dugg ci diine bi rek dal di ñoŋ ñoŋal deret ñoŋal am am ñoŋal der ña waroon yépp te duggul ci biir ñu dal di wax ne qalat il arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna mu ne ñi waroon madina yépp doon dëkk yu ndaw ñoom ñëpp ñi fa dëkk dal di wax ne aman na gannaaw ngëm rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg gëm nañu ñoom jaaruñu ci islam dañu wax rek aman na gëm nañu li mu wax nangu nañu ko d'accord nañu borom bi subhanahu wa taala mu ne déet qul lam tumin gëma bu leen de waaye nag wax leen ne rek nangul nañ la la ngay wax xeexatuñu ak yow waaye labaat ba ëmb nag ak la mu bëgg jaarabu leen ci fokk rek ngeen dal di nangu dëppoo ak li baat boobu di wone loolu nag la bugg a ñëw ak ñun tey won ñu ne melo bi gën a màgg ci islam mooy melokaanu imaan te imaan boobu mooy li nëbbu nekk ci biir xolu doomu aadama kenn du ko yëg kudul kamu nekk ca xolam ak borom bi subhanahu wa taala keneen bu ko yëgee xamal ne jeexantalu iman boobu nga gis mu sàmm ay cëram lu mu wax dal di ko def lu yoonam nekk mu dal di ko bàyyi mbokkam jullit dinañ ko boppam te lépp rek da koy teg ci tegtal mu xam ne kii lamu wax ca lam ne ñam moo yàlla lu dul ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tëralee moo taxoon mu dal di ñu wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd bépp jëf koo xam ne doomu aadama jëf na ko te du yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko digle mu ne dañ la koy delloo moo tax ñu teg benn règle générale ñu ne al aslu fi l ibadati attashrii ñu ne cosaan ci jaamu yàlla mooy lu ñu yoonal waaye loo xam ne yàlla waxul yonent bi waxul day dellu ca aaya bi mu waxoon rek in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba wa ma anzala allahu biha min sultaan nekk lu dul ay tur tur la boo xam ne yaa ko indi rek nga ne yàlla nii la tudd rakka yi boo ko defee da ngay am nangam fii boo fi jullee da ngay def nangam kaddu gi boo ko waxee da ngay def nangam boo joxoñee sàngam da ngay def nangam da ngay gis doomu aadama boo xam ne bu ñu sëlmalee boo moytul mu bënn say bët fu ne dina ko joxoñ fu ne waaw loolu fu mu ko jëlee ci xelaatum boppam rek lu ne dina ko bind fu mu ko jëlee ci xelaatum boppam te nga def la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek nga noppalu te nga ne astaghfirullah ñetti yoon nga tudd borom bi subhanahu wa taala nga jàng ayatal kursi jàng qul huwallah jàng qul a'udhu bi rabbil falaq jàng qul a'udhu bi rabbin nas waaye léeg-léeg da ngay gis koo xam ne ca kanamam laay tëg rëdd ba wërale bañ dee rek waaye qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum bañ dee rek du dara de lu dul bañ dee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne li leen tëree jub ñaar rek la mu ne loolu mooy lan mu ne karahiyatul mawti wa hubbu dunya mooy bañ dee buggu àdduna kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala won lii nga xam ne mooy dëgg wërsëgal ñu xol boo xam ne da koy nangu dal di ci jaar yàlla nañu won lépp loo xam ne mooy caaxaan ba ñu xam ne loolu mooy caaxaan mu wërsëgal ñu xol boo xam ne da koy bañ dal di ko sori wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullah
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala ñuy jéggal ñëpp te di jéggalu ñëpp te di wax ne taqabbal allahu minna wa minkum saliha a'malina wa aadahu allahu alayna bilyumni walbaraka kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala nangul te mu mooy ñu ñu teewee ay tabaski yu wari te mu nangul ñu jaamu yàlla biñ ciy def kon borom bi baaxe woon nañu ñu bër mu baaxe waat ñu ñu dajewaat ci li nga xam ne moo war a dajale ay doomu aadama di mbir mu jëm ci pas-pas te ñu yëg ne loolu dong mooy tax doomu aadama dal di texe ndaxte wa man yactasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim képp koo xam ne rek moom dafa jëm ci borom bi subhanahu wa taala kookoo am njub te njub boobu nag bi tax ñu nangu jëf mooy pas-pas kon bu ñu borom bi baaxee ñu jëm ci kooku dañ koy sant ñu ngi woon ci ponkub ñaareel ci yi nga xam ne doomu aadama bi da ko war a xam gannaaw bam ñu waxee ne nga xam diinal islaami teg ko ci ay tegtal te mu joxoon ñu lu bari loo xam ne ay xaaj yuy dugg ci jaamu borom bi subhanahu wa taala lu mel ni ragal tiit roxlu yaakaar mu yooyu ay xaaj la ci jaamu borom bi subhanahu wa taala te bu nekk joxoon nañu teg talam tey nag ci mu jëm ak ñun mooy tegtal bii wone waru julli ak asaka féet doomu aadama bi mu ngi koy def mu ngi des amul pas-pas te bu mu ko noppee def rek keroog la pas-pas jeex ci moom moo tax al muallif rahimahullah mu ne ñu wa dalilu salaati wa zakaati wa tafsiru tawhid mu ne lii nga xam ne mooy tegtalu julli ak asaka ak lan mooy firi tawhid xam nañ ne tawhid mooy islam te mooy al istislaamu lillah wal inqiyaadu lahu bitaati wal xuluus min ashirk mooy jox sa bopp yàlla wommutu fam la jaarloo bàyyi la mu la tere te sori lool lépp luy bokk bu dee loolu mooy tawxid loolu la ñuy netti li kon tawxid boobu day am ay càpp niñ ko waxee woon mooy buñ la laajoon lan mooy tawxid wala ñu laaj la lan mooy iman dëgg-dëgg mooy maa waqara fi lqalbi wa saddaqahu l amal li nga xam ne mu ngi ci biir xolub doomu aadama te nit ñu ngi koo gis waaye nag jëf moo koy firi jëf moo koy dal di firi buy julli ñu yaakaar ne am na iman buy joxe asaka ñu yaakaar ne am na iman léegi la ca ay def te di ko yàq mooy sellal nit mun naa taxaw di julli te du jëriñu mun naa joxe asaka te du jëriñu li koy teree jëriñu nag mooy sellal sellal boobu bu amee rek mu am li nga xam ne mooy iman bi tax mu jëriñu kon ñaar yi mu neñu borom bi subhanahu wa taala wax nañu ne wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم سورة البينة mu ne borom bi subhanahu wa taala moom ñuy wax ne wamaa umiru digaluma leen dàq na bépp ndigal mu ne man daal digaluma leen kon daa am lu mu bugg a dëgëral illaa lu dul li yaabu nañu jaamu kon càq yi ñu romboon yépp ci gannaaw dugg na ci baa baatu li yaabu kon borom bi mu ne moom diglewul lu dul jaam kon lépp lu doomu aadama bi di def na fexe mu nekk ibadatan lillah nelew bi nit ki di nelew rek yonent bi ne mun naa nekk ibadatan lillah dal di liggéey ba sonn dal di bàyyi xel dem noppaleku ji boole ko julli gee ba pare boole ko jàpp dem talal fas yéene noppalu ngir mun a jaamu borom bi subhanahu wa taala dal di tëdd wàllu ndeyjoor jàng ñaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon jàng te digle ko dal di fas yéene noppalu ngir xëy jaamu ji borom bi subhanahu wa taala liggéey yi looy dundee féeg yaa ngi nelew rek yeewoo goo ñu ngi bind ay tiyaab kon doomu adama baa ngi toog deful dara waaye ñu ngi koy bindal ay tiyaab ndaxte ca yéene ba la def mbir moomu mu nekk ibadatan lillah yonent bi mos naa jàkkaarloo sahaaba yi ba mu yàgg mu ne leen wa fii bud'i ahdikum sadaqa wa fii bud'i ahdikum sadaqa mu ne sëy bi ngeen di sëy ak seen soxna yi sarax la borom bi subhanahu wa taala da lay bindal ne saraxe nga sahaaba yi ne ko ajib ahduna yaati shahwatahu wa yuktab lahu sadaqa mu ne kenn ci ñun rek dab bànnee xam ñu bindal ko sarax yonent bi ne waaw waaw mu ne waaw léegi nag bu ko defoon feneen fu dul soxnaam alaysa alayhi wizr mu ne ndax buñ ko bindal bàkkaar ha kay dañ koy bindal bàkkaar kay mu ne kon kay bu defee lu dagan moo gën a yeew tiyaab kon jullit bi kon lépp lu mu def rek mun na koo wal ba mu nekk ibadatan lillah kon loolu moo tax jaam bi borom bi ne ko digaluma la dara kon dara amul illa lu dul kon am na beneen digal mooy lan li yabudu llah nañu jaamu yàlla ndax jaamu yàlla rek nga dem ne déedéet muxlisiina lahu muxlisiina ñuy sellal kon nag bu njikkal duggee yàqu moo taxoon yonent bi dal li ñu wax ne axwafu ma axaafu alaykum ashirku l asgar wa suila maahu qaala awliya yonent bi ne li ma gën a tiit ci samaw xeet tiital leen ko aa mooy bokkaale bu ndaw waaw ñu ne ko bokkaale bu ndaw moom mooy lan mu ne ko mooy njistal safaanoo sellal moo tax borom bi subhanahu wa taala ne fii nañu jaamu yàlla waaye nag muxlisiina ñuy dal di sellal lahu ñeel ko moom borom bi subhanahu wa taala addiina maanaa doxalin bi nga xam ne moom la fi tëral ñu tuddee ko islaam mu wax ñu feneen ne ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه mu ne képp ku indi beneen doxalin bu dul tëralinu islaam mu bëgg koo def tëralin borom bi du ko ko nangul abada kon nag islaam dong la nit ki di def ñu mu njëriñ ko moo tax borom bi ne addiinu inda allahi l islaam addiinu mu ne doxalin bépp nag bay jëriñ doomu aadama ca yàlla mooy al islaam boo nekkee ci biti islaam loo jëfati amul njëriñ waaw diine jooju mooy jan borom bi ne mooy hunafaa diine joo xam ne nangu la jaxaso dara moom daal moom dong rek la mun a nekk hunafaa diine ju jeng la bépp xelaat ak bépp doxalin bu bàyyeekoo ci yàlla baa ci yonuntam yaa ko ci bugg a boole waaye déedéet moom diine la joo xam ne du nangu leneen lu dul la jóge ca yàlla du nangu ab doxalin lu dul bu sukkandiku ci borom bi subhanahu wa taala moo taxoon borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني ورب سبحانه وتعالى أمولي وخنا لدي يو ينتبي محمد صلى الله عليه وسلم مسما يني كي يننتي لجيت لدر رك وحينا جمتي موم لدر خملنا كوني amul kenn ku yeeyoo jaamu kudul man kon muhammad jaamu leen kon loolu mooy maanaa hunafa kon diine la joo xam ne moom doon nag doxalinam leneen bokkum waaye nag la koy dëgëral mooy wa yuqiimu salaata wa yutu zaka nañu saxal julli te nañu joxe asak moo taxoon fii ñu ne alsalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin mu ne julli daal mooy kenu diine képp ku ko saxal mu ne taxawal nga diine képp ku ko màbb mu ne màbb nga diine kon diine mu ngi taxaw ci julli julli boobu nag daa am lu koy dëgëral mooy jooxe asaka gis nga borom bi subhanahu wa taala waxul génnee de daf ñu wax ne wa yu'tu azaka ñu joxe kon nit mën naa génnee joxe ba dal di jàdd yoon moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di ñu wax ne umirtu an uqaatila annaasa xatta yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu alsalaa ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أثموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام yonent bi ne ko umirtu man de yàlla digal na ma lan la ma digal an uqaatila ma naa xeexal nit ñi daf maa digal ne naa xeex ak ñi bañ lii nekk suñu diggante mooy al adaawatu wal bagdaau abadan xatta yuminu billahi waxda lii nekk suñu diggante daal mooy xeex ak noonoo ak bañante xiiroo ŋaayoo ludul dañuy jaamu borom subhana wa taala moom dong mu ne lii daal buñ ko defee te ñu nangu ne man yàllaa ma yónni ñu dal di saxal julli dal di joxe asaka mu ne ñoŋal nañ seeni deret ak seeni am am daganatul ci man ma tuur seeni deret daganatul ci man ma jël seeni am am ludul ci seen ndigal illa bi xaqul islam lu dul nag li ci islam soxla amma li ci islam soxla moom foog ñu jël ko looloo tax abu bakrin radiallahu an waxoon nañu ne moom foog mu xeex ak man farraqa bayna salaati wa zakat mu ne képp ku teqale diggante julli ak asaka dinaa xeexal moom moo tax mu ne diine moom duñ ko wàññi mukk abu bakrin radiallahu anhu mu ngi dund kon lii nga xam ne mooy julli ak asaka ku ko bàyyi dañuy xeex ak moom delloosi ko ci yoon moo tax mu am buntu haddu taariki salaa haddu taariki salaa maanaa dañu war a rey képp ku bàyyi julli képp ku bàyyi julli dañ koo war a rey naka lañ koy reyee yustata ci njëlbeen gi dañ koy woo digal ko julli ci yoonu laaye biir bu lankee ñu digal ko nag dafa war a julli ci biir laaye biir bi foofu lañ koy leeralal ne julli lu war la bu amee sikki sàkka bu mu ci amoon mu leeralal ko won ko tegtal yi won ko yëpp bu nangoo walillahi alhamd bu bañee nag ndigal fal force dal di ñëw loolu bu bañee yustataab léegi nañu ne ko tuubal parce que génn na ci diine léegi yëfër yustataab bu nangoo nag julli jot na ñu sant ko ko mu lànk ñu xaar beneen bii ñëw fan bu lànkee nag la ca des mooy ñu dal di ko faat ndaxte génn na topp moo taxoon lay dugal ñii nga xam ne ñooy ay yéeféer ak bokkaalekat ci biir diine gi mooy loolu fa in taabu wa aqaamu salaa wa aataw zaka fa xallu sabilahu mu ne suñu tuubee nangu dugg ci biir diine gi saxal julli joxe asaka bàyyi leen libre ci beneen aaya borom bi tudd yooyu yépp fa in taabu wa aqaamu sala wa aataw zaka fa ixwanakum kon ñoom nag ñooy seeni mbokk ci diine kon lii di julli lii di asaka fokk ñu dal di ci bàyyi xel ndaxte bokk na ci ponk yi juróomi ponk yi nga xam ne mooy tax jaam bi dugg ci diine bu leen bàyyee kon mooy tax mu génn ci diine waaye nag lan mooy salaa maa maana assalaa assalaa ci déggin bu yaatu bi mooy addu'a mooy ñaan looloo tax am na benn xadis bu ñuy wax ne addu'a u huwa lislam lii nga xam ne mooy ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala ñaan boobu nag ñaari xaaj la am ñaanub sant ak ñaanub jaamu ndaxte borom bi subhanahu wa taala moom fokk nga defal ko lii nga xam ne mooy ñaanub jaamu képp koo xam ne lànk na bañ na koo def rek borom bi subhanahu wa taala dina fekk moom booleetu ko ca ñu tënku amma julli nag ci déggin bu xat bi mooy jëf joo xam ne al amalu wal aqwalu al muftatahatu bittakbir wal muxtatama bittaslim mooy ay jëf ak ay wax maanaam ay action ak ay wax yoo xam ne ñu ngi ko tàmbalee allahu akbar ñu ngi ko jeexalee assalaamu alaykum wa rahmatullah loolu la ñuy tuddee julli mooy assalaa kon sëgg siggi sujuud jógaat mooy ay jëf allahu akbar sami allahu liman hamida subhana rabbi al ala subhana rabbi al azim yeneen yu mel noonu loolu la ñuy tuddee ay wax yii nag ñooy daje ñu ubbee ko allahu akbar ñu tëjee ko assalaamu aleykum wa rahmatullah mu dal di tudd assalaa ci wàllu sharia kon julli boobu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moo dox diggante ki gëm ak ki wér boo gëmee rek danga koy def boo ko bàyyee dal di nga bokk ci ñëween bi julli boobu ki ko sàgganee borom bi subhanahu wa taala mu ne kooku day day torox ci sàgganee julli mu ne nag boo seetloo képp ku sàgganee julli rek fokk mu sàgganee lépp luy indi yoon lu mel ni sarafe lu mel ni dimbale miskiin lu mel ni jàppale jirim lu mel ni appelé matériel mu ne boo xetee sàgganee julli rek yooyu yépp dootoo ko nangoo baaxee mbokkub julli moo taxoon borom bi subhanahu wa taala mu ne ñooñu sàgganee julli te nekk ay jullit musiba dal na leen mooy ab mbugal moo taxoon mu ne ñu fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahu mu ne day mbugal ñeel na jullikat ya nga xam ne dañu koy sàgganee dañuy sàgganee julli bi ba waxtu wa jàll dal di dem yoonam wala ñu toog ba heure bu ñu neex rek ñu dal di jóg rek fa ñu toogoon rek jàkkaarloo korto korto rek dal di ko def comme ni nga xamee ne noonu lañ ko tàmmee ci grand place yi toog demal ñiwal toogal bàyyil dañu toog rek nga gis ñu dal di jóg rek nga yaakaar ne dañuy foo rek naan allahu akbar ñooñu ñooy an an talatim sahum xam nga ñoom ci seen bopp yëg nañ ne dañuy fo dañuy caaxaan wala ki nga xam ne moom yoonam nekkul ca waxtu wa ndaxte laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo gën ci ay jëf mu ne assalaatu mu ne julli ca waxtu wa ci beneen fii awwali waxtu julli ca bopp waxtu ba kon yooyu dañuy gis ne julli ju am solo la mu ne loolu nag bu ko defee ñooñu nga xam ne dañuy sàgganee julli mooy alladina yuraa'uuna wa yamna'uuna almaamu mu ne ñooñu nag foo leen fekk njistal rek la ñuy nekkee yuraa'uun bu xesee sàgganee julli mu ne lu mu jëfati rek foog mu bugg ku ko nettali ku ko tudd ku ko ci tagg te foo ko fekk ku bon lay doon matériel moom du ko nangoo appelé abadan matériel moom bokkul boo ko ne abal ma nangam mu ne déedéet matériel dañ koy jënd naam xam nañu ne matériel dañ koy jënd waaye nag borom bi subhanahu wa taala da laa baaxee kon yow itam na nga fexee baaxee doomu aadama ci lépp loo xam ne day tax dundam dal di yomb mu ne dañ ko ciy baaxee ataka boobu it dal di ñëw ndaxte asaka cër la bu borom bi subhanahu wa taala moomale boppam ca lamu la jox mu ne cër boobu nag joxal ma ko ku mel nangam ak nangam ak nangam joxee ko nii lépp loo xam ne yaxantu la borom bi subhanahu wa taala mu ne may naa la fukki weer ak ñaar lépp loo xam ne yaxantu la mu ne may naa la fukki weer ak ñaar te matériel ba ko liggéey bokku ca bu dee ay kër nga yore mu ne wax wala nga génnee valeur kër ga def déedéet matériel la booy liggéey kooku matériel la ba ko ko waaye la nga jot a dajale ca kër ga nag am naa ca waaw am na ca deux virgule cinq pour cent ci fukki weer ak ñaar yu ne bu dee ay oto yuy daw nga yore mu ne waxuma la nga valoriser oto ba de la mu liggéey ba mu tege loolu laa la wax bu dee ab bitik ah loolu nag loo teg la kon marchandise ba foog ñu valoriser ko amma matériel ba ngay liggéeyee mu ne bu ko valoriser frigidaire ba fa ne nga xam ne boobu dañ ciy seddal ay mbir di ko jaay loolu matériel la balance ba mu ne loolu matériel la loolu dañ ciy sukkandiku ngir liggéey amma la nga jënd ñëw teg ko nag ngir jaayaat ko amaat ca mu ne loolu foog nga valoriser ko bu dee ay frigidaire ngay jaay nag foog nga valoriser leen bu dee ay oto ngay jaay foog nga valoriser ko bu dee ay terrain yoo yore ngay jaay foog nga valoriser ko ndaxte loolu nekk na marchandise boo xam ne bu tegu la amma nag bu fekkee ne ab terrain vide la boo xam ne du mbir commerce yaa ngi ko fi teg rek ngir denc ko ba mu seer nga dal di jaay la kooku ñu ne bul ko valoriser ndaxte loolu beneen affaire moo tax mu tegu fa amma nag client rek boo ko fi bàyyi ah boobu day dugg ci lii nga xam ne dañ koy dal di natt dal di ko seet loolu mooy mbir yi nga xam ne mbiru yaxantu la amma mbiru mbéy nag mu ne foofu moom waxuma la fukki weer ak ñaar foo góob rek ab mango nga yore fu mu ñor rek jeex na asaka ba ñëw na ab dugub la fu mu ñor rek ñëw na ab gerte la fu mu ñor rek ñëw na loo xam ne rek dañ koy béy muy sax di ñor fu mu ñor rek asaka ba jot na mu ne un dixième laa ko soxla un dixième laa soxla maanaam fukk yu nekk nga génnee benn su fekkee ne borom bi subhanahu wa taala moo la arrosel amma su fekkee yow yaa gas sab teen jënd sab moteur wala fay doomu aadama boo xam ne moo koy liggéey mu ne déedéet loolu waxatuma la un dixième un dixième boobu xaajal ma ko ci dëgg kon demi dixième laa la laaj ndaxte am na participation boo ci def ah waaw boo ko tuddee noonu aussi mun na nekk maanaam un dixième bi divisé par deux kon loolu lañ la laaj ci anam googu kon loolu ngay dal di joxe kon ñu gis borom bi subhanahu wa taala lépp loo yaxantu ci sa doole rek mu ne sóoraale naa doole boobu donte man maa la ko jox de maa la baaxee wér gi yaram maa def lu ne waaye gannaaw yëngatu nga rek mu ne baaxee naa la ci mu ne kon nag miskiin ba nga xam ne nag moo nekk sa wet borom bi subhanahu wa taala ci ay nattoom dal di ko seetaan ci ay nattoom mu dal di la jox mu ne kon am na ci àq àq boobu muy romb di gis mu ne dëgg-dëgg jox ko àqam googu ndaxte bu dee ab tool la boo góobee mais foog nga jaay ko mu ne ñooñu li nga xam ne ñu ngi jënd nag am na ci ñoo xam ne ay miskin lañ kon participer nañ ci sa moomeel boobu kon jox leen lii nga xam ne mooy seen àq kon àq boobu bu yeggee ci ñoom rek mu tudd azzaka azzaka dëgg-dëgg mooy attaksir mooy setal day setal almuzakki wal maalul muzakka day setal ki génnee boo génnee asaka rek borom bi subhanahu wa taala nee na sell nga laab nga alal jang ko génnee mu ne alal ja sell na laab na cër boobu nag nga jël borom bi subhanahu wa taala daa am ñu mu wax ne joxal ma ko kii ak kii ak kii tuddul seeni tur waaye dafa tudd seeni melo mu dal di ñu wax ne innama alsadaqatu lilfuqara walmasakin والآمنين عليها والمعلفة والمعلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله wabni sabil muy juróom ñetti nit njëlbeen bi mooy alfuqara mooy ñu ñàkk donte borom xam-xam yi wuute nañu ci alfaqir ak almiskin kan moo gën a sonn am ñu jàpp ne alfaqir mooy ku amul dara almiskin mooy ku am lu ko doyul kon miskin moo tane alfaqir am ñu gisee noonu wala alfaqir mooy ku amul waaye am na nu mu fàggoo almiskin mooy ku munul sax fàggu faf am itam ñu gisee noonu almuhim ñoom ñaar ñépp ñu ñàkk lañu alfaqir ak miskin muy ñaar ñetteel ba mooy ñay liggéey te asaka commission asaka ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu ko woon doomu aadama beeg sagoom daa jëloon benn commission mu ne yéen na ngeen dem di jëli ay asaka bu ñu ñëwee ci gétt dal di ko xool wëññi nag yi mu ne ko ah yow de asaka war na la te nangam nga war a génni moo taxoon commission boobu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénk leen ne ah moytu leen la gën a rafet nag ca jur ga moytu leen la gën a rafet waaye bu leen jël la gën a ñaaw itam kon diggu doomu bi kon foofu li ñuy jël dal di yóbbu bu ñu ñëwee évaluer kon heure boobu la ñu gisoon ne asaka dëgg dëgg jëfoon na la nga xam ne moo taxoon mu jóg ndaxte la taxoon mu jóg mooy xeex ak ñàkk moo taxoon ci wàllu dundub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dangay xaar dangay gis kuy ñëw di la leb mu ne la maa ngi lay leb dañuy jëli asaka ñëw parce que assuré na moom wàllam dina ñëw te wàll ji ñëw wóor na ko ne dina ci am la mu dundee ak la mu fayee bor ndaxte moom wóor na ko ne moo ko moom nekkul ne dalay neexal wala day def leneen waaye xaquhu moo ko moom boo ko ko xañee itam mun na laa woo ca ka nga xam ne mooy attekat ba mun na laa dem ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo la fa wala ki nga xam ne moom la fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di teg mu ne yeeyoo naa te xañ nañu ma te fokk wàllam dina ñëw kon moo taxoon da ngay gis dañ doon lebee ne jox leen ma daña jëli asaka dal di ñëw commission boobu di jël asaka nag yonent bi ne kon bàyyi na këram bàyyi na liggéeyam kon yeeyoo na nañ ko ci jox mu wuutu pay bañ ko doon jox mos naa benn waay mos naa bokk ca commission boobu ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii ak lii ak lii mooy asaka yañ ma jox amma lii ak lii nag dañ ma ko faa may yonent bi ne ko déet du noonu ala jalasta fi bayti abika hatta tatika alhadaya mu ne ah lu teewoon nga toog ci sa kër papa ba lu cadeau yiñ la jox fekk la fa mu ne lii joxuñ la ko lu dul nomination bi ma la teg moom dong moo tax ñu jox la kon moomoo ci dara kulluhu lillah lépp borom bi subhanahu wa taala moo ko moom miskiriyee ko moom kon moo tax yonent bi dugaloon foofu baatu riswa nañ ko moytu ndaxte mun nañ laa jox ngir booy woññi am loo sóoraale moo tax mu ne laana allahu raafi wal murtasi yonent bi ne yàlla rëbb na képp kuy joxe nger ak ka koy nangu kon commission boobu looloo tax moom itam mu bokk ca ña yeeyoo asaka donte nag génne nañu asaka donte bokk na ca ña woomal ñu tànn ko mu wëññi ay nagam génne asaka donte bokk na ca commission boobu bu ñu ñëwee foog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ak ciram kooku seetatuñ ne ñàkk na wala yeeyoo na wala déedéet immaa mu nangu wa immaa mu delloo moo taxoon am na ku ñu joxoon mu delloo yonent bi ne déet nangul nangul ndaxte sab àq la yaa ko moom foog nga jël ko gannaaw ba nga ko moomee nag waaw moomale ko ku la neex nag léegi jox nañ la ko ñu ne la jëlal bul ne non man daal doyal naa joxal keneen déedéet yonent bi ne jëlal ba nga moom ko ba pare nag nga gis ne masamba ku ñàkk la nga ne am man ku doyal la am na kon jëlal kon yooyu àq la bu la borom bi subhanahu wa taala jox kon foog nga jël ko moo tax mu ne wala amilina alayha aka yelloon ñu dundalaat commission boobu donte sax ci mbokk yi nga xam ne nangu nañu ñoom tënku ci alkitab wa sunna ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosul jël kii mu ne yow policier nga wala kii douane la wala kii gendarme la mosul am bu ñuy atte day toog atte nangam ak nangam diw mii day atte nañ ko dañ ko war a rey sahaaba yi yóbbu leen ko baqiira yi ko lu mel ni maïs radiallahu an ki ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njaaloo naa yonent bi boobu mu ngi toog ca jàkka ja di jàngale mu ñëw ci kanam mu ne ko njaaloo naa setal ma yonent bi dal di xool moom bare mel ni buggul dégg wax mu jëwaat boot ba wax ko ba muy ñeenti yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xam ngeen kii est ce que ànd naa xelam ne waaw waaw kii suñu dëkkandoo la de ànd naa xelam de xanaa dafa tarxis rek bugg ko ko setal yonent bi doyluwul ci loolu mu ne waaw na am ku jóg xeñtul ma gémmiñ gi mbaa naanu sàngaramaan bi ñu dal di xeñtu ne déed kii dara jotu ko de kii mu ngi ànd ak xelam de mu ne ko waaw yow maa it ndax xam nga lan mooy njaalo mu ne waaw waaw xam naa luy njaalo de la ngay def ak sa soxna def ko kudul sa soxna looloo njaalo yonent bi ne ko déet yaa maïs la allaka faxista la allaka qabbalta mu ne amaan na yow maïs da nga koo fóon rek de mu ne romb naa fa de yonent bi mu ne ah yow maïs ci ci ci tànk bi rek nga yem mu ne romb naa fa de mu ne ah kon nag léegi atte bi mat na kon nag yóbbu leen ko baqi rey ko moom xam na lan mooy atte ba mooy sànni ko ay xeer sahaaba yi nettali ne ñu ngi gëñ ne kenn jàpp ko kenn yeewu ko waaye kenn la ci ñun doo xam kan la ñu ngi dox rek dem ba àgg baqi rek mu dal di taxaw ñu for ay xeer dal di jam rek jam rek ba mu métti mu dal waaye ñu dab ko jam ko ba mu dee bañ ko nettee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw lu teewoon ba mu dawee ngeen bàyyi ko amaan na la mu waxoon la weddi kon gis nga islam la nga xam ne moom lay doxal du génnee secret doomu adama déedéet du rey doomu adama déedéet waaye lënkale xelu xolu doomu adama ak allah kon ñi nangu loolu maa id mi nangu nañ ko rey mais yooyu tam war nga nangu benn commission ñëw évaluer sa buti ah looloo gën a yomb rey kon commission yooyu la ñu waroon a fexe dal di ko dundalaat mbokk yi nga xam ne nangu nañu dund ci keppaaru téere borom bi subhanahu wa taala ak keppaaru sunna ngir mbir mi mun a sell waaye waroon nañu former benn commission mu ne la lii laa moom mu jox la bu dee daa am ay facture yoo xam ne bor la ak yëpp mu ne la lii ay bor la lii nangam ak nangam évaluer mu dal di évaluer mu ne sa am am sab moomeel mu ngi toll nangam kon asaka bi mu ngi nekk nangam mais mu jël mu ne te jëlle commission jël seetal ñi nga xam ne ñoo ko yeew kon kooku kenn du xam ne sax masamba ngi joxe asaka asaka muy soxla loolu kenn du ko xam waaye lii moo taxoon borom bi subhanahu wa taala ne cey bu ngeen génnee woon asakka ba mbaa sarax di ko joxe wone ko ba ñu gis ko ne ah loolu itam day baax na fa ni'immaahi ne ah lu seetlu la lu baax la de ndaxte keneen dina ko gis roy la ci waaye cey bu ngeen ko génnoon nëbbu ko ba kenn gisuñ ko mu ne fa huwa xayrun lakum ne looloo gën ci yow kii joxe moo tax ren rek gis nañ ci benn ku yàlla baaxee mu wax ñu coono bu muy am ba mu bëgg nañ ko teg ci commission ndaxte sonn na munatul am jàmm këram munatul am jàmm place am te léegi moom mu ne wóor na ko sax mu ngi koy jox sax ñu ko yeewul ay yéefar ak ak caaxaankat ak ak ñu bon parce que munatu ci dara loolu la ñu wonoon nag borom bi subhanahu wa taala li mu waxoon nag boo ko nëbboon looloo gën commission boobu bu bu taxawoon yow sa yoon nekkatul ci dara ndaxte kii joxe asaka mu nga fële ab commission la moom itam du alalam mais foog mu ragal ci borom bi subhanahu wa taala gannaaw du alalam ab commission bu ñu ko teg la te commission boobu dina seet ñoom itam lan mooy seen àq kon dinañu yittewoo gëstu dëgg-dëgg ñeyeyoo loola mais ñu jox leen lu am solo ñu jox leen lu am njëriñ mu gën a nekkat lii nga xam ne mooy xeex ak ñàkk amma bu fekkee niñ koy joxee la naam génnee nañu waaye la taxoon nag ñu teg asaka loolu dootul am ndaxte xeex ak ñàkk moom dootul am ndaxte téeméer ak ñaar téeméer moom xam nañ ne day yokk ñàkk waaye loolu moom du di génnee ñàkk te nag nemmeeku nañ ñu bëri noonu lañ koy defee de ñu ngi génnee asaka gaa waaye nag génnee asaka boobu zuyewul rôle bi nga xam ne loolu la war a def moo tax am ku ci joxe woon benn misaal rek mu ne lu tax asaka di xeex ak ñàkk bu ni xool yow yow ki nga xam ne yaa ko nangu am lu bari mu ne yemul ci yow mu ne xoolal léegi am na njoboot yu bari la gën a néew la ñu bàyyi mooy ndékki mu def ko fa misaal mu ne ci ndékki rek la ñu bàyyi la tax mu bàyyi ndékki rek mooy néew doole te kër googu lu mu néew néew néew fukki miis mburu waroon na faa dugg nga gis ne benn moo fay dugg wala dara wala xale yi ku nekk ñu jox la juróom boo demee école am loo jënd mu ne léegi nag kooku buñ ko joxoon asaka boo xam ne doy na ko ngir mu liggéey ren ba déwén waaw kon fukki miis yooyu foog mu dugg waaw yooyu bu ñu duggee waaw kees bi nekk ci wetam ndax du yokk ab commande bi mu doon joxe mais kees boobu dina yokk commande am waa kees boobu bu yokkee ndax boulangerie bi ci boppam moom itam du yokk effet ba mu doon def mais bu ko yokkee liggéeykat yi ndax du ñu yokk consommation facture courant bi ndax du yokk consommation facture ndox mi ndax du yokk waaw ka doon béy bele ba ndax moom itam du yokk ab toolam waaw yii yëpp yokkute yii yëpp nag ci sababu kenn koo xam ne génnewoon na asaka jox ko ab doomu aadama ñe kon léegi réew mi fu mu jëm mais ci yokkute bu yaatu ndax loolu sax nekkul xeex ak chômage mais xeex ak moom la kon lii moo tax ñu ne asaka buñ ko appliqué rek ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam appliqué ko rek ñàkk moom dina néew lool ndaxte ku ne dina am fu mu téye ku nekk dina am lu mu def te moom itam dina gore ndaxte yaa ngi toog manoo dara te léegi gis nañ ay ndaw yoo xam ne macha allah am nañu dëgër lay am nañu kóolute am nañu cawarte am nañu volonté waaw kii boo ko ñëwee nga gis ne moom deful dara taxawul ci dara léeg-léeg sax mu nekk koo xam ne am na métier deux millions trois millions nga jël jox ko mais lan lay def mais day ubbi ab atelier mais atelier bi kenn du fa liggéey mais foog ak mbooloo fay war a liggéey mais lii yëpp ab avancement la boo xam ne loolu yëpp mu ngi soqeekoo ci lii nga xam ne mooy jooxe asaka moo tax borom bi subhanahu wa taala di ñu wax jooxe asaka kooku ñu defal loolu waaye dëgg-dëgg kooku itam nag mu tënku waaye déwén moom itam dina ko defal keneen déwén kooku defal ko keneen déwén jéeg kooku defal ko keneen ren yow kenn yaa joxe woon mais déwén ñaar joxe déwén jéeg ñett waaw bu ñu demee fukki at ñaataay joxe lim bu bari lool kon loolu moo tax ñu ne asaka nañu ci bàyyi xel moo tax ba borom bi subhanahu wa taala tuddee ñaar yii rek mu ne ñu wa zalika diinul qaj mu ne loolu nag mooy diine ji jaar yoon waaye feeñ ñaar yooyu ñëwuñu mu ne diine jaaragul yoon kon ñun suñ diine jaaragul yoon de diine ji des na kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee ci diine jooju mu jaar yoon kon ñetteel boobu nga xam ne mooy wal amilina alayha mu daldi ci teg wal muallafati qulubuhum ak ñi ñuy nooyal seeni xol boroom xam-xam yi wute ci am ñu gis ne mooy yéeféer koo xam ne duggagul ci diine ñu xemeen loo ko daldi ko jox am ñeneen ñu gis ne déedéet du yéeféer de waaye mooy koo xam ne am na gaa te jullit la te kàddoom man naa yàq jëfam man naa yàq ñu jël jox ko jox boobu ñu ko jox mooy ñu tëj gémmiñ gi gannaaw kat gis na ne ah kii am na beneen mbir boo xam ne mu ngi ñëw kon kooku la mu doon yàq day dal di noppi ndaxte lay ñëw bëggul mu dàkk am ñu gis ne loolu mooy al muallafatu kulubu amma ñaareelu xelaat bi nag moo doon gis gisu umar ibnu alxataab radiallahu anhu al muallafatu qulubuhum moom ci jamono mu ne ñooñu bokkatu diine dafa nooyoon bëgg ñu mu tëj seeni gémmiñ ñu noppi bëgg ñu mu xememloo ngir ñu jàppale leen mu ne waaye léegi diine dëgër na léegi ku yëngu rek jaasi moo nekk suñu diggante xalaas al muallafatu qulubuhum ñu noppale ko ñu ci léegi moom ku yeeyoo rek la ñuy jox waaye koo xam ne dañ lay neexal lii mu ne tollootuñu fa amma ñun nag ci suñu jamono tey ñu ngi ci toll parce que yaakaar naa diine lu néew doole la ci ñun daif kon da nga gis ab kilifa boo xam ne da nga koy jox ngir tëj gémmiñam ndaxte ñu bari ñoom jox jox rek boo leen joxee rek boo ñu waxee ah ñoom ñu baax lañu de te fekk àndul ak yow ci pas-pas boobu de abadan waaye lii ñëw na bëgg na mu continuer di ñëw loolu moo tax politique boobu yu bari ñu ngi koy dal di doxal moo tax olof yi dal di misaal ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu itam moo tax ñu dugal ci ñooñu ñu dugalaat ci itam ku yore ab bor bu mu mënul fay ku baax la gaa ndaxte bor dina topp nit ba tere ko dem jàkka ja inaam ndaxte wax nga ak moom jox nga ko def nga nangam ak nangam maanaa ci boutique bi ci koñ bi te bu ñu ne allah akbar la doon yoon bitig yépp tëj dal di ñëw ci jàkka ja te joxoon nga ko rendez-vous la nga yaakaar jotoo ci ah boo moytul nga tardé julli nga kon nag mbokk moomu dimbale ko ba mu génn ci loolu ne kooku itam dafa yeeyoo lii nga xam ne mooy asaka ak koo xam ne mu ngi ci moomeelu keneen mu ngi ci moomeelu jàmbur maanaam ak njaam te dëgg-dëgg moom itam bëgg na am liberté liggéeyal boppam léeg-léeg sax mu nekk koo xam ne déggoo na ak sangam mu ne ko jox ma sangam nga jëndal sa bopp kon kooku itam day yeeyoo ñu dal di ko jox ndax mu mun a libre ak lépp loo xam ne mooy fii sabilillah jàkka yi dugg ci teen yi dugg ci école yi dugg ci dispensaire yi dugg ci lépp dal di ci dugg mu ne loolu tam asaka mun naa dem ci loolu ak doxandéem koo xam ne joge na ci beneen réew ñëw ci réew te ay ñoñam nekku fa kooku itam yeyoo na ci imma mu mun a dellu ca ay ñoñam wala mu mun a yóbbante ay ñoñam kon juróom ñett yii la borom bi subhanahu wa taala wax ne nañ ko ko joxal cër bii lii suñu ko defee rek jàmm dina am bëggante dina am soppante dina am sàmm alali dina am sàcc dina wàññeeku tappale dina wàññeeku agression dina wàññeeku yàq dina wàññeeku lii yépp dina wàññeeku parce que wóor na la ne sama àq bi dina ñëw kon jaratul ngay dem di ko sàcc ndaxte lu ne mun na la ciy fekk waa jaa ngi dem jaratul nga dem nga ne dañ koy agressé pour rey ko jaratul leneen lu dul nag mu nekk koo xam ne ku génn topp la bu nekkee ku génn topp la moom kooku yeneen mbir la kon yii yépp bu ñu bëggee bu génn ci société bi dañuy appliquer lii nga xam ne mooy asaka te suñ ko defee bi isinillah lépp dina dal di génn kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee loo xam ne dinañ ko mun a joxe ci asaka te bu ñu ko baaxee it yàlla nañu dimbale ñu mun koo joxe na nga xam ne moo gën اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا حسن اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بقي ci mbaaxaayu borom bi subhanahu wa taala ak ngëneelam mu xiirtal ñu ngir ñu gëstu lii tax doomu aadama des fii ci kaw suuf ci desin ba gën mooy jubbanti ab pas-pasam te gis nañu ne ñu bari ñaax nañu ci wàllu boobu ndaxte gis nañu borom axdar yi bokk na ca lam ña soññoon mu ne jaam bi war na koo yittewoo tàmbalee ko mooy fexe ba def lii wiral pas-pasam awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi summa maarifatu ma yuslimu bihi farda ayni kon bu ñu borom bi baaxee ñuy jéem a xeñtu liy jubbanti suñuy pas-pas kon kooku dañ ci war a sant borom bi subhanahu wa taala dañu jël téere bii nga xam ne mooy al usul assalasa mooy ñetti ponk yi wala ñetti kenu diine yi maana fexe ba xam sa borom xam sa yonant xam sa diine te teg ko ci ay tegtal demoon nañu ci ba mu wax ñu suñu boroom wax ñu suñu diine mu dem ak ñun nag wax nañu suñu yonent dem ak ñun ci suñu diine nag dugg nag ci li mu ñu waxoon nga teg ko ci ay tegtal suñu bind bi mujj ñu ngi jeexalee woon ci tegtalu julli ak asaka ndeke gis nañ ne nit ki du mun a nekk jullit ndare muy julli di joxe asaka su fekkee ni sàmmat na ci moom ndaxte yéeféer bii bokkaalekat bii naafett bii wala seen deret ak seen alal di ñëw ñu nekk mbokk ñu boole leen suñu bopp fokk ñu def ñaar yooyu maanaa saxal julli joxe asaka ba borom bi subhanahu wa taala limee ñii ñëpp mu